Euh, Seydina Ousmane yëkkati na ko ku dégg kàddu yi xam ni kàddu yi ànd naa xam-xam waaye ku dégg kàddu yi tamit xam ni kàddu yi ànd naa ki yar waaye ànd naa ki teggin ñu ko ci remercier bu baax a baax a baax waaye ci moment boobu ñuy wax ak moom rek ci la ki nga xamante ni ni moom mooy euh, Serigne Modou Niang daal di teewee Serigne Modou Niang di reporter fii nga xamante ni ni euh, moom la ñu nekk muy Assalaamy TV lëkkaloog Assalaamy FM 99.0 Touba moom nag bokk ci ñi nga xamante ni ni ñoom ñoo demoon ci caravane boobee nga xamante ni ni ñoom ñooy caravane waa Pastef bi moom mu kon fa témoin oculaire kon jàpp naa ni que war na mën a expliquer lu baree baree bare ci li nga xam ne amoon na foofu sëñ Modou Niang ci caravane boobu ak accident bu ñu fay dégg lan lañ ci mën a jàppee. jërëjëf problème mooy situation oto bu ñu amoon moo tax gars yi jiiruñu mais kon daanaka si karawa kii bi si lañuy accident bi du danañ koy danañ ko fekkee mën na mën nañ danañ jiitle ak moom mais heureusement gars yi ñoo njëkk départ dem trent trente minutes la ñu jiitu après ñu topp seen ginnaaw mhm. mais accident bi yow Babacar mhm. bu ñu la koy nettali nii te yëmoo sax doo ko mën a comprendre ngir garaaw gu ndax bu ñu xoolee situation bi mu amee mhm. raaraan daaru naahim bi mooy raaraan euh, kii bi yoonu Kayel bi. Mhm. boo dee jëm cent central bi rek bi génnee. Mbàkke jëm jëm Kayel. Mhm. ok jëm Darou Nayef raanaa boobu nga xam ne latéral lañ ko war a eggale. Mhm. dañu war a sotti latéral eggale ko. raanaa boo xam ne dañ koy doog commencé la moo tax mais. tooy ma oto bi ki toppoon ci oto bi lim ñu expliqué mooy. waa ji lim na daw. dafa def vitesse ba mënatu ko contrôler moo tax mhm. daanaka action accident bu garaaw la daanaka oto bi 4x4 bi ñëpp xamoon nañ ko moo tax bi mu bi mu bi mu defee soog rek ñëpp xamoon nañ ne yàlla jàpp mais leneen ma leneen maa na cee xew mais en tout cas ak lu mën a xew daal xam naa ne. foofu moom métti na trop trop trop ndax ñun yàlla suturaal ne fekkee nañ am ñoo fi ñoo fi jiitu sappoor. biñ ñëwee fekk nañu gars yi tëdd nii mais dangay yow daanaka bu la yaay muy xol muñ dëgg-dëgg wala nga am dëgër lay tuuti sax mën ngaa perturbé perturbé wax ndax bëri na ñoo xam ne ña nga fa woon ñoo xam ne wax dëgg yàlla moo dañoo téye seen bopp waxuma la jigéen ñi mais góoñ sax dem nañ ba kenn mënta tee boobu ngir image yoo xam sokan sokan yoo xam daanaka loolu sax comprendre xam nañ ni euh, ki nga xam ne moom moo jiite woon euh, caravane boobu noonu moom mooy Serigne Cheikh Thioro Mbacké l'honorable député nekk tamit tête de liste départementale moom moo jiite woon caravane boobu bi loolu noonu xewee sûrement fa la ko war a fekk ban réaction la am. waaw comme ni nga ko waxee bi choc bi am fekk ko fa mais bi mu ñëwee fekk na sappoor ñëwagul mais réaction am da xam ne kii am na lu ko naqari ndax kàddu yi mu yëkkati sax yàlla xam ñun mu muñ ko yëkkati ci antenne bi nii publiquement ba pare boole ko jooy yu metti daanaka ba kenn mënu ko téye moo ko responsable yëpp ku si mel ni Biram honorable Ahmed Lo code ñu fi àndoon ñëpp parce que kenn mënti ree sa moroom nee naa dem na ba sécurité bi ñoo sécurité ñoom sax dañ doon jooy waxuma la ak ñi nga xam ne ñooy militants yi ak jigéen ñi góor ñi jigéen ñëpp di jooy ngir métti métti yoo xam ne te xam ne xam posté xam ne daanaka ñoom ni ñuy dundee famille lay doon hmm. moo tax daanaka bi mbir mi xewee rek kenn mënu koo nettali sa morom ñëpp di jooy waaye nag alhamdulilah ñu tombee ñu ñu dugg village boo xam ne ñëw baax lañ ndax ñoom ñoo ñoom ñoo fi jiitu avant gars yi ñëw ñoo ñoo jàppale gars yi may ndox jàpp ñenn ñi xaw leen a wàcc kii bii ñu si bëri xam nga raara la moo tax ñu si bëri ñu ngi woon si kaw raara bi après lañ xëcc ñenn ñi teg leen su sapeur ñëwee daal di motali yéene ji defar yóbbu ñenn ñi yóbbu ñenn ñi hôpital Cheikh Khadim yéen yóbbu ñeen ñi hôpital Jannatul pour le moment ña nga fa sax ba ñu dégg ñu dégg ñu dégg ne euh, bilan bi benn nit moo fa ñàkk bakkanam waaye tamit am fa fukki nit ak juróom-benn yoo xam ni jot nañ fa am ay gaañu gaañu yow mi nga xamante ni fekkee woon nga ko ñi nga xamante ni ñi ngi woon ci biir oto bi muy chauffeur bi wala muy ñi nga xamante ni peut-être amuñ gaañu gaañu ñoom nan la ñuy nan la ñuy réagir bi nga xam ni loolu am na. non am na ñoo xam ne am na ay gaañu gaañu mais. méttiwul comme par rapport ak ñeneen ñi ndax am na su ko xam ne moom ki ki si gaañu malheureusement moom dafa nekkoon ci ginnaaw ci xam nga pick la. Hmm. mu ne si ginnaaw te ba pare dafa taxawoon li ñu source yu dañu fa jotee am ci amance li ak ñi àndoon ak ñoom. Hmm. nee nañ waaye moom dafa taxawoon moo tax bi affaire bi xandaaloo woon ndax oto dafa dafa xandaalu. Hmm. dafa xandaalu ak poussière boobu foofu noonu daanaka ko fa dem. boo xoolee affaire bi nga xam ne lii métti woon na moo tax daanaka métti na lool ba pare daanaka gaa yi ña fa daanaka gaa yi beleesement yi ay catégorie la ndax ku si mel nii ah, ah, ma Majaw ak Nabou Faye daanaka ñëpp ñoom lañ doon laaj mais heureusement ñoom yàlla def na gaañoo nañ mais beleesement yi méttiwul ak responsable mm-hmm. yeneen yeneen responsable ku si mel Bada nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci poste moom it bokk na ci mm-hmm. blessé yi ak yeneen mm, partisans yoo xam ne ñu ngi woon ci kii ndax buñu dee xool oto boobu noonu waa CPS ñoo ñoo si ñoo ñoo ci faral di si yéeg muy parti xa xale Pastef mm-hmm. ak seen leader muy Madiaw xam Madiaw moo jiitee si bees mm-hmm. Pastef Mbàkke mm-hmm. mooy sa ba pare xool nañ ko fan jaar chargé de mission mook beneen naataango muy euh, nabu Faye ñoom ñoo si nekkoon ak seen xale yi ñu naan àndal moo tax bi soog bi amee rek ñëpp dañ ne oto boobu baa diw nekku ca mais heureusement mu nekk ca tombeek nag gaañu na mais yàlla suturaal na ko ba ba bellaitement yi métti méttiwul yenn yenn métti. mais waaw kay. Mhm. ay double fracture ak yooyu doon lañ lañ ci nemmeeku yoo xam ne am na ko. Mhm. li ñu mën a daal jàpp nañ ne seize blessés lañ am. Mhm. ak benn mort. kon kon pour le moment nag gars yi nee nañ. ndax gis nañ. Euh, communication parce que Babacar Sarr génn nañ benn publication daan képp koo xam ne rek mën ngaa maye deret nga dem hôpital Cheikh Khadim maye fa deret ndax soxla nañ ko jamono ndax blessé yi xaw naa métti métti goo xam ñoom yitewoo nañ ko lool diggante hôpital Cheikh Khadim ak ndaamaatu ak euh, hôpital Matlaboul Fawzeyni macha allah Serigne Modou Niang xam naa dinañ ñëwaat ci yow yow fii ngay des ndax comme yaa ngi am information yi nga xam ni mi ngi jugee foofee ca hôpitalu Cheikhul Khadim waaye tamit du jugee ci hôpital Madlabul Fawzayni loo ci mën a amaat entre temps rek danga ñu koy daal di balancer euh, ñu daal di koy mën a jàllale askan wi li ma mën a jàppee ci loolu mooy wax ji nga waxte muy lu am solo loolu mooy excès de vitesse ndax seetlu nañ ni moment de campagne yi nit ñi duñu dawal ndànk mm. ñu yor pick-up bi dañuy faral di taw daw daw dañuy dañuy mel ni duñu duñu oto am na fu muy toll doo ko mën a contrôler moo tax euh, xobbeeku balaa ngay lakkale. kon am nga baal ma nga baal mm-hmm. mais boo xoolee sax ñun xam nga depuis campagne bi commencé ba tey. Mm-hmm. ñun presse ñu ngi daan ànd di gunge gaay ci campagne mm-hmm. mais boo xoolee lii nii da nga tey tey tey laa dogal lii mais mënoon naa am te ni amee ci Pastef noonu la mën a amee ci yeneen ndax ñun bu xoolee suñu convoi bi presque mën na cinquante nanga voiture mais yàlla xam na ne ñun teg presque depuis kii bi quoi génnuñ. ñi ñi ngoon ci village yi mm-hmm. mais da ngay dugg benn village boo xam abraham bon la mais li gars yi daw rek mm-hmm. yàlla moo ñu suturaal mais lii mënoon na am bu yàgg wala bu amee mu gën a métti mm-hmm. mais heureusement ndax gars yàgg nañ ko alerté yàgg nañoo wax oto yi yi dawal leen dànk ndax tëli yi baaxul yoon yi baaxul mais chaque jour rek da bëgg dee mais du mujj fenn moo tax loolu nga wax am na yi war nañoo bàyyi xel bu baax ci accès bi ñuy def ndax lu mel ni li am tey looloo ko indi te mënoon naa gën a métti mënoon naa gën a am feneen fu dul fii ndax nekkul première fois la ñuy def saar accès de virage yu mel nii mm-hmm. te li problème mooy naan jàmbat jik wax jikul sax garab waxuma laa nit mm-hmm. te malheureusement tey du bisu naqar la mais nekkul ne day bett ñëpp mm-hmm. ndax ñun ñu ne am na gars yi mm-hmm. koo jox daraan oto la rek xamoon nañ bettuñu mm-hmm. moo tax te yàgg nañ ko alerté mm-hmm. moo tax bu liy amee rek day metti loolu mais danañ ko wax comme comme kon yéen a ko déggandoo ñun ñëpp ñoo ko ànd déggandoo li causé loolu nga xam te ni moom mooy euh, accident na li ñu a jàpp mooy excès de vitesse ci la bokk leneen nag mën na am ci biir waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teewoon nekk ay témoins oculaires li ñu mën a jàpp mooy excès de vitesse am na ci et pourtant gis naa ay nit ñu nekk ci dëkk bi di ci def ay campagne de sensibilisation sensibilisation ku ci mel ni sàll nay leer gis naa ko moom kuy dox ci loolu la mm-hmm. di wax ne oto yi dañoo war di daw ndànk di mm-hmm. dal ndànk te boo dawee ndànk sax da nga du dal ci dara bay dal ndànk mm-hmm. kon nañu respecté bu baax a baax a li nga xam ne moom mooy code de la route ak campagne ak euh, suñ nekkee ci campagne ak